waaw sëriñ bi dafa wax ne sen léegi jóge na ci ñetti junni ak ñaar téeméer yi mu doonoon léegi juróomi junni ak ñaar téeméer mooy can te buñ ko seetee buñ ko nattalee ak vingt cinq quatre vingt cinq grammes yi nga xam ne moo war a ci ci ci ci ci or ñaar fukki yi boo ko boo ko divisé ñaar fukki moom quatre virgule vingt cinq la war bu nekk war a jël dix neuf mille kon soo ko boolee dafa ma ne rubu dinaar bi moo war a nekk vingt vingt mille lu tegal fanweeri dërëm kon waaw waaw kon mooy mooy li ci gën a néew nga xam ne ceeb mënu ko yees waaw moo tax sëñ bi wax ne kon nañ koy def juróomi junni ak ñaar téeméer bu ko seetee ci xaalis itam dana dana dana dana ëpp loolu nekk léegi mais jar ñaar yu ni manqué juróom fa kon su ko baax dana nekk moom itam trente mille yu mooy téeméer juróom fa waaw. moo daal ceen fi nekk nañ ñëpp xam ne li sëñ bi di joxe ndigal mm. mooy ñetti juróomi junni mm. ak ñaar téeméer mm. ndax jamono sëñ Tuubaa waxoon da ñaar téeméer ñaar téeméer juróom fukk jamono sëñ Tuubaa ñetti junni sëñ daa teg ñaar téeméer kon mu mel ni naka jëkk day dox kon jamono ji itam foofu la toll sëñ bi daal ko fay tollale mooy juróomi junni ak ñaar téeméer mas naka jëkk day mas di dox ah. waaye sax bu delloo gannaaw seet ñaar téeméer yooyu sëñ Tuubaa doon wax la mu doon tekki yaakaar na léegi juróom junni sax mënu ko tekki léegi waaw la njariñ la mu amoon yaakaar la mun yaakaar amoon lii nag mooy li gën a néew cen cen amul mm. gañ jaaba rek gañ jaa néew la am mm. waaw gañ jaa néew cen na la mat la mat a robo dina moo gën ngaa néew bare gi rek mu am fu